jàpp nga ni vidéo bi ni mel war na mën a fuite bàyyee ko ci ñoom ngir sekkal seen bopp au regard de euh, euh, ginnaaw bi mu génnee moom Bougane Sèye di tuuma yi mu teg ci man dama dama lay wax ni la sincèrement hmm. vidéo bi mu génnee foofu la placé wu dama am njàqare hmm. njàqare ci nii dafa am li nga xam ni dafa commencé yàqu ci suñu biir koor yi loolu moo nu indil ay modèle yenn yi ñu leen koy gis nit ñi di xëccu ci yenn position yi loolu moo indi lii gendarmerie boo analyser fait boobu ni théâtre arrestation gendarme yi rek la ak ki ñuy arrêté parce que opération la ñoom ñooy dem ñoom ñooy arrêté ki ñu bugg a kenn amul seetaan amul fekke kon film bi ci seen biir la ñoom ou bien film bu ñu filmer la parce que dañ ko soxla pour li nga xam ne moom lañ doon liggéey ou bien ci seen biir am na ki nga xam ne pendant ko ñu ngi filmer pour lu ñu liggéey mu ngi jël jumtukaayu boppam di filmer lu mu yóbbul boppam. Hmm. ñaari kaay yooyu ñooy am. ci opération ku mel noonu mun naa ànd ak gendarmerie. ci ci foulée opération non gendarme lay doon seen biir. ah si seen biir mu am yeneen visée yu uute gi. du am visée mais. ci négligence su comportement wu équipe bi. dafay am pëccoxoo jaxasoo kii di dem fii ñu naan eh jàppal fi gis nga situation bi demee woon. Hmm. waxal noppi les consorts nga gis ku yore portable ak de manière anodine li ñuy wax yëpp mu ngi koy filmer nii tranquillement boo gisee film sax état wu film tax ni muy bouger nga xam ni kii manqué na précision ak ni mu taxawee ça peut émaner de quelqu'un comme ça. ki nga xam ni moom pendant que ñu ngi filmer professionnellement pour am fixer moment boobu moom mu ngi profiter situation bu ak dis discrétion bi am ci équipe bi pour def leneen li nga xam ne da yóbbul boppam dans tous les cas hmm. moom ma indil ñàqare boobu am na lu ñu war a tëggaat am na lu ñu war a tëjaat hmm. am na fu fu ñu war a delloowaat suñu koor yi hmm. am na benn niveau bi nga xam ne war nañ ko cultiver mooy niveau wu secret niveau wu responsabilité niveau wu bu serré bi nga xam ni war na mën a delluwaat nit ñu xam discerner comme de par le passé ci ni ma xamee woon gendarmerie lu def defoot lu defuwul. ndax mënatul nekk. d'accord ci euh, donte nag senn na vidéo boobu. amul problème <laughs> euh, senn na <laughs> mujj na ñëpp jotee nañ ci gis nañ ko dégg nga ko comme ko waxee gis nga ko dégg nga ko ci fee bi. lu mel noonu comme ni nga condamné sànq wax ni euh, activisme yeeg taxawaay bi ñu amee ci réew mi mën na ko jural fitna waaye ci fee bi nga xam te moom la ñu tegee loxo ku mel ne Bougazelli noo koy qualifié. ci bi biñ ko tegee loxo. waaw ñu ko sekkee ak euh, li nga xamante ne moom moo tax ñu téye ko loolu yow ba nga ko gisee noo ko noo ko noo ko jàngatee. mais si bettuma loolu parce que ni gendarme ni ñu ko defeeree woon. war na la may nga xalaat ni lu mel noonu am na jàngat bi c'est très simple. ñu bàyyi ko nii waaw waaw. pour ñu bàyyi ko nii. waaw mais si noonu la justice di doxee yóbbu nañ ko tribunal tëj nañ ko. demande nañ liberté provisoire may nan ko liberté provisoire ñu ngi continuer pour juger ko je crois que loolu war na mën war déggees na ko jàppoo ni c'est un précédent dangereux ci ki nga xam te ne xëy na mu ngi ci yëngatu euh, di def euh, naka su dul noonu nekk ci si tey bu demee ba gis ni kat ah si la le gars n'a pas été inquiété man sama point de vue bopp moo indi euh, commentaire yi mais lu tegu ci yoon tegu na ci yoon kenn bàyyiwu ko ci lu teguwul ci yoon ci yoon la tegu mais bu dee man rek mooy wax sama waxu bopp ah je crois que pour ñu gënoon dimbali justice wala pour justice gënoon dimbale boppam mm. waroon nañu gën a mën a farlu ci wone rigueur bu ëpp bii ci cas bii ah man nag maa koy wax man maa ko wax ban xeetu rigueur soo koy wax waaw mooy rigueur bu ëpp bii mooy ñu fexe ba du du du du nu leen mën a accuser de négligence dans la démarche mais malgré ça li nu def yëpp ci yoon la tegu nga tëj nit